yàlla yaay am yaay mën ngir yàlla yaay am yaay mën yàlla fay fay sa xarit yàlla yàlla fay fay sa xarit ngir yàlla yaay am yaay mën يا ربي فاتقيت تايب تايب بط بط يندخ يا ربي فاتقيت يا يا واي أم واي مت يا يا bu ma tax da ngeen dem julli ji ngir yaaya yaaya moo njaboot ak suñu borom ak njaboot yu ay am yu ay man ngir yaaya yu ay am lu waay mën ay waay bi dara xeebuñu yéemuñu lu ñu wax ñu waay am jërëjëf yàlla la yàlla fay dem bu jaale la ñu ci day Touba ci des. ay waay ku ñuy sarax waay. ay la du ay du reer waaye li matu tëdd la man de li ma sarax tey dañoo def ségrégation ñaara man kenn ñu. yow ana sarax ak ségrégation yalwaanal ku la war sarax dina la sarax sarax fan nga mës a gis kuy sarax di ségrégation. Ah. yow de damaa yaakaar ni sa say ñooy ñi ngay yaakaar di yuuxu noonu laa mën a waxee noonu la ma yàlla bindee te noonu laa koy waxee. père man ku yow ma xeexum. père yow ah. am gis naa yaatu. ñu ko yeeyoo ñu ko loo bëgg a wax ñun yeeyoowuñu ko ñun ñuy ay handicapé ni yow. ñii ma ne ñii man ko bàyyi ko yaay man ñii ma mel. bunun hakkını kahramuran. Yani kablını yine tutmuyorlar. İyyâki bullâk tâlâk. Mısâbi ni def ba traité dinaa ko lijjanti man dinaa xam nan la def ba traité. da ngaa bëgg a wax léegi handicapé dañuy wut gàllaaj ñu leen di sarax. loolu nga bëgg a wax. waaw baax na loolu nga bëgg a wax. man maa ngi waat moo yàlla de. handicapé bu ñàkk gëm yàlla nga yow. man maa ngi waat baax. wax dinañ mun nga sa jaaraale noonu dem julli waale. Right. Um. Right. Yeah, yeah. Right. Um. Ba daw. Mu yolleeku de. Mu oh, nga yolleeku de. Man dama yóbbu yaa. Loo yolleeku toog. Waa nar na. Dama ne loo yolleeku. Bëccëg ci bëccëg. Boo ko waxee xale mu foog ni bëccëg tabaski la. Ba tey. yàlla du ñu ñu àtte bi yéex dul yàlla neen la. bi yéex dama ni lu dul yàlla neen la. bu ma wax. waaw la nga yolleeku de xam nga ne kuy caxagul nii sama jënd bi caxagul ndey. <laughs> allo ah chéri mon amour dama ni dama ni dama ni yow yow ku la xool xam ni yow fii laa la dem waaw tey wuy ma du la ay ginaar yu saf sàpp la ñu bëgg ay yu saf sàpp xaama jox la sa waay ginaar yi ñooñ ko ba ca xarandeen dagalaam ñu ngi ñëw léegi sur le def ci tuuti soble bu ñorul nag dégg soble bu ñorul bi rek wis ko ci kaw waaw baax na kon ci kanam. fekk bi yaay sama booy yaayee ñu booy. dëgg la te moom pourtant jour la kon naa koy bale mais yow tam yaa nga kaas ci ay sër te kenn du ci yaa dàq kaas yi man xam nga rek taa moo tax may liggéey yow moom sama kaas rek naa ko jël yow loolu jëntal nga ko waar baay lu xew la jël ko xam ba jàmm la waaw. baal jooy ñu wax ñun waa jàmm nga. lan fa yaa ko yaakaar mais dafa am ñaari booy yi xamante ni bii li yéex ku dee sa bàmmeel du ñu ay handicapé. lan. booy yi mën na tayaat ak. buñ dañuy jug pare yéen pour ñu tayaat yéen ñoom. ah. yaay maa ngi man bu ma jiyee Fatick yaay kay yii yaa encaissé gu. ñoom dañoo jël sa xaalis. di jël sa xaalis kay. waaye mais ñooñu duñu ay handicapé père duñu ay handicapé. affaire bi garaaw na de. léegi père lay ñaan nga delluwaat nga lal foofu sa nga lal foofu sa sa sa sa carton xaw ma lal ka fa ñun ñoo ngi ñëw. est-ce que ñun ñu doon kon. mais la def dara dama def dara wala yow léegi ñëw yow boo demee bu leen wax dara. melal ni ñëwal di yolwaan rek. waaw yow mu mel ni sax ñëw nga fi du ñu wax dara. mën na seetlu dinañ la fa ñëw léegi dara. waaw ñu ñëw léegi. da sa xol seet yow. jërëjëf jërëjëf. mais li garaaw na de ah. daal yéen la. béyee. waaye lu mu wut si waat ah demul woon. ah mu doon doon tuur dugub <laughs> rek. diir ay waay ku ñuy sarax waay. Kaña. yoo. jàpp jàpp jàpp ba waxtu yu jot a moo ko moom ak ñeent. waaw saa waay nga jóg ku teey tax yow yow xanaa da doon julli wala biig da ngaa reeree wala nga la wala ñam waa xaw a am gerte reeree woo ci dara man yu ma mën a maa ngi yeey di sant yaay am ñu waxoon te yeeyuñu te ci boppam ak fayda xam nañ lépp waaw nga xam bay ay waay ku ñuy sarax waay yi yaay ìwà ẹm ìwà ìgbẹ́. ẹ waay ku ñuy sarax waay. ní ìhàyà ìwà ẹm. ẹ waay ku ñuy sarax waay. ìwà leen toog leen toogal. toogal leen toog leen naan nii. toogal kaam. da doon dëpp si miir. dañu téléphone sañoon naa téléphone. taxawal. nii dañuy yàq dañu handicapé yi. ñoom déedéet ci yéen. wul wul jooy wul jooy non non wul jooy waxal rek. xaalis bi ma leen wax jooju yëpp. ana xaalis bi. ana xaalis non non. taxawal taxaw ana xaalis. baa ngi nii ñii ay sàcc lañ ay sàcc lañ. jox ko sàcc am lii la lii la man des na. des na ma téléphone ñoq tam tuñ bi. jox ko téléphone bi lan téléphone bi am téléphone bi dugal. jox ko jox ko téléphone bi. téléphone bi nu ko moom téléphone bi yaa ko moom yow. yéen ay sàcc lañ. ak téléphone jox la wax yow doo noppi. téléphone yow. dugal dugal dugal. sukkale nañu sukk nañu sukk sukkale sukkale sukkale sukkale nañ kii bi toolam soo mën nañ dox mën nañ dox mën nañ dox sax doxal soo soo doxal soo doxal soo doxal soo doxal soo doxal soo